Zoss. ci loon maa ngi nii rek ñàkk ma sax nekk si entraînement yi rek. waaw yow waaw yow ñu ngi fa di la namm looy xaar ci combat dañ laa ragal wala yaa ragal. non man yàlla rek laay xaar kenn ragaluma ragaluma kenn tamit. non yàlla mooy tracé wërsëgu nit quoi même borom boutique ngay ni mën na tijji jaay tey cinquante mille suba mu tijji jaay mille francs noonu rek laa ko teg loxo yàlla quoi. ana Garga Mbossé. non ñooñu ñëpp gisuma leen man xëy promoteur rek ku indi rek yàlla dogal ñu war a bëre moom mooy loolu mais yaa déet war ngaa tudd mbër yaa Garga Mbossé lamb la wala. ah non non man du ma tudd benn mbër promoteur yi daal ku ma jox ma bëri ñoom. sa digganteeg Lac Rose tamit déggoon naa ko daa mel ni. man man man déggul man kiiwu ma ko man kooku moom vraiment wax dëgg yàlla kooku moom vraiment bëgguma bëri moom quoi. bëggoo bëri la non non bëgguma bëri Lac Rose. da nga koo ëpp doole wala da nga koo raw. du question léegi ba ba kanam nga bëgg a waat ngan di ma ami yooyu noonu xam nga day day xaw a kii quoi. kon maanaam du sa adversaire su ma la dégg. non non non nekkagul sama adversaire xanaa kay yàlla tere tere di ko ñu daanoon maay daan yoo xamante ne maa may problème mu dugg fii génn fii ba xaw a kii wax moom mën naa bëre moom mais nii man daal nii man sama benn defet ak sama diñ non du ma ko arrêté di ko jël moom. jël eh, ma ko am ñu la ko doon proposé wala. Ah, yaa ma ko wax de mais du ma ko jël quoi. dégg man. ah yaa ma ko wax mais ah yëg ku yàlla dogal rek bul tudd kenn keneen ku yàlla dogal rek parce que boo fi tuddee tur nit pour ñoom ma bëreel daan ñëpp musuma leen liggéey ay liggéey naa dee tey lu ma fen non jot boobu sax mais koo si tudd turam rek pour moom yaa ngi koy liggéey yaa ngi koy takkaax yooyu man aw jot boobu entraînement bu wóor laay def ñëw indi samay cosaan wàcc si géew foo nekk ma dóor la loo mën di def bu arbitre sifflé ma duma boo yaroo ma daan la ndànk boo yaruwul nag ma dumala ba nga génn. nekk lool daal loolu nga taxawee. loolu laa mos a taxawee ñi ko commencé woon ñëpp bàyyi nañ ko am bëri na fi mbër yu commencé woon dóor bàyyi nañ ko bu yàgg man moom laay deewaalee wax set. tey am na combat am defe naa Ama Baldé mas ngeen a bëree Ama Baldé bëree ngeen. waaw mos na ñoo bëree waaw Sa Thiès bëree ngeen. waaw ñëpp boo xoolee amaat nañu ay combat ci diggante bi ba am fu ñu yeggaat yow nga yow nga xaw a mel ni ko taxaw lu waral loolu. waa mooy ab julit laa man yàllaa ngi def si man loo xam ne defu ko si ñoom man ab julit laa am na loo xam ne ma tëjji woon sama téléphone wala ka fi rek da nga naan lii lan la mën a nekk si kii sol jiin nii taxaw nii yaa rek dégg laa ngi def si ay mandarga si man yoo xam ne defu ko si ñoom man ab julit pire laa non ñoom seen wërsëg moo demee noonu man sama wërsëg moo demee nii di bëggee waa yoof yëpp ñi may bàyyi xel di ma jàppale te waruñu koon def sax ñoom maa leen di bëggee ñi nga xam ne ñoom waroon a jàppale te tënkam lu ma maa leen di bëggee ñoom tamit. amul promoteur bu lay contacter fi mu nekk nii. non benn promoteur contacté wu ma si mbër boobu nga wax noonu. mais ren pare nga pour bëre ren. korité korité bii ndéwénal pare naa pour bëre ka kii léegi guy gi nee pare na pour bëre ka man ka ñëw fii si géew bi léegi. gi daa waaw waaw loolu laa lay moom man maa ko gën a pare boog laa lay wax. yow yaa gën a pare guy bi bu bëreewul woon ak euh, Reug Reug maa ngi koy félicité si victoire yi muy def di yóbbu turu Sénégal partout dans le monde yàlla na continuer quoi. mais ma ne ko guy gi ba pare woon léegi ne ma simmi ma jiin bi ak ma tubay ji nii ngemb fii benn jigéen almaseer ma ngemb léegi ñu bëre fii. kon Reug Reug ak guy gi bu tasee yow combat bu jeexee kuñ la fi jox ci ñoom ñaar nga jël. loolu dafa sori laa waaw dafa dafa jox ab jo yóbbante fii si plateau bi dani ma guy gi nee bu jëlul woon rek rek da lay jël ma ne ko man mii loolu dafa sori ba ñëwee léegi ñu may amateur yi fi nekk max moom ñu bëre bëre dóor bu ko neexee bëre simple. yow luñ la ci nga ñëw. lépp laa mën. ana Yaxya. Yaxya mi ngi fi maa koy nuyu bu baax di ko ziar waaw waaw di ko ziar bu baax di. seen écrit bi tamit daa mel ni mu ngi dox de e yoo. waaw écrit écrit bu écrit yëpp lañ boole léegi mu nekk benn. xale yëpp benn lañ soo ñuy tey indi tey capitaine Dina si écurie Yoff bu njëkk bi lañ nekkoon suñu écurie ñu léegi yëpp lañ def benn mu suudewu waaw di encouragé Yaxya di ko ziar di koy wax beneen yoon buy demati si manifestation di calmer xale yi moom damay oo man rakam laa Ngor moom naa fa Wakam moom naa fa Yoff moom naa fa yaa ngi dégg su àndoon nag man xëy na boo yi sànni xeer ba toj boppam xëy na du àgg foofu quoi bi ma ko yëgee métti na ma trop. ci manifestation waaw est-ce que du daa bëggoon jàmm rek. waaw jàmm la doon wut mais booy dem si yooyu da nga ànd ak sa rakka. non voilà pour sax kal am na foo xam ne soxnu diw la boo fa demee tey ji kuy politique sax da kay def léeg day ñëw si dëkk mu ànd ak mbër moomu ñëw. xam nga mbër yàlla ka may loolu ko eh, man mënoon dem Joal dinaa ko woo laaj kay kiyam mais eh, zone Ngor Wakaam Yoff sama zone la ko waaw loolu bu ma ko yëgee si guddi gi automatiquement rek dama ko def sëñ mu ooma. caatu ngewel alias Birame. dafa. waaw caatu caatu ngewel moom mi ngi si de. caatu bi naa daan alliance bi a ah, mi ngi entraînement de amul ku mu mënta daan door moom bu xasee majeur moom amul ku mu mënta daan attan saaku ceeb amul ku mu mënta daan. waaw mu ngi liggéey daal li war a liggéey dexuñu si kam waaw gisoo si ay saal muy funkil ay biir ay yaram non mi ngi liggéey géej lu wow koŋ alliance xam alliance lan la mais na na préparé bu baax. da si yokk na si ay xeex xeex yu yoo xamante ni naqari déret naqari ku la wax loolu. non Baye Badiane yi la. bàyyil tooñ Baye Badiane naan la. Baye Badiane yi ëpp lay. xam nga alias bi daa mën a bëre. allah xam nga maanaam man damaa nekk ci yoon nekk nekk ci keppaar ñii di ma préparé ku si mel ni Malick Niang Modja dinaa ay caatu yoof man damaa am ñoo xam ne danoon ne sama ginnaaw alliance bu soobee sunu borom xanaa mu daw mais bu taxawee duñ sax bëre lu yàgg billaahi xanaa mu daw. Malick Niang ne bëggul Lac noo Malick Niang moo Lac Rose maanaam moom daa ñeewantal Lac Rose xam nga Malick Niang tey jii nii buñ ko joxee Lac Rose leneen mën na see xew Malick Niang ñu mu a bëreel du Lac Rose mooy ay moroomam yi am combat wala yi amul combat ñu ñëw ñu bëre du du du tur nag mais gars yi xam nañ ki Malick Niang war a bëreel te ainsi xam nañ li ñor li fi sës. koo gis ku fi sës. yow koo gis. kay tudd naa léegi garga. waa kon jéena yow yaa ko gis man ma gis ko keneen ak keneen gis ko kañ kon na promoteur yi tarase sa waay mu ngi entraîné chaque jour na Seydina Mouhamad day entraîné matin soir mu ngi liggéey mu ngi préparé. sa waay loxo yaa ngi yëngal loxo yi mbaa dooma dóor mbaa dooma dóor. sa waay daal pare nga mooy loolu billaahi porte bi a ñeewantal quoi man mi ngi mel ni taal ak sondeel yow xam nga bomb ak fital yamuñu xam nga dañuy dem ba si biir nag après ñu ne voilà bu leen ko joxati combat sax. kontaan si gën a yàqu la nag